fukki raka raka bu ci nekk nga jàng fatiha benn yoon jàng sabbi isma rabbikal a'la benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun benn yoon jàng xul huwallaahu ahad benn yoon mel na ni ku moom àddina bi yépp ak li ci biiram mu dundale ko ci yoon yàlla te xaraf wu ci nekk dees na ko ca tabaxal pale bu rëy ca aljana te mel na ni it ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane ko julli te mel ne ni ku jàng alxuraan téeméeri yoon xaj téeméeri yoon umra téeméeri yoon te des na ko bindal tuyaaba joo xam ne yàlla rekk moo xam fayam te bu bis penc ba du gis lenn lu muy ragal wala lu muy jaaxle ba keroog muy tàbbi aljanna mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral dangay dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou bu Mbàkke page 147